alhamdulilahi waxda wasalaatu wasalaamu ala man la nabiya baada wa baad mbokki jullit yi noo ngi sant sunu borom tabaraka wa taala di julli ci ab yonentam di leen dénk di dénk sunu bopp ragal yàlla ci topp ay ndigalam ak bay ay tereem gannaaw loolu ñu xam ne nuyóob lislaam sunna su yàgg la nu lislaam sunna su sax la mooy nu waa àjjana ëllëg borom bi ne wa taxiyatuhum salaam ëllëg waa àjjana bu ñuy nuyoo asalaamualeykum wa rahmatullahi jii ngeen di nuyoo moom la ñu nuyoo romb ay nit nuyu leen nag dafa am ay maanaa yu bari yu muy firi ndax asalaam buñ ko waxee mooy jàmm salaam buñ ko waxee mooy yiw salaam buñ ko waxee mooy tuuru sunu boroom tabaraka wa ki romb ay nit ñiy séentu ci moom leneen wala ab safaan ñu dégg ci làmmiñam salaam kooka dalal na xelu ñam romb kon maanaam mu am solo la ñaareel ba wan na ne kii kat ñi mu rombit yëg na leen loolu daldi doon kon ak toroxlu ci wetam wan na ne it bëgg na leen ndax koo bëggul doo ko ñaanal jàmm te asalaamaaleykum mooy yàlla na jàmm nekk ci yéen te it day raxas xol bi mu set wecc ci lépp loo xam ne xeetu keñaan la wala xeetu mbañeel wala xeetu rëy ci kaw nit ñi ndax yooyu yépp ku ko séq ak nit doo ko ñaanal jàmm te dafa bokkit ci àq yi nga xam ne jullit bi daf ko yoreel moroomum jullitam bor la boo xam ne daf ko ko war a jox bokk ci yi nga xam ne day indi ak xamante di indi ak miinante di yokkitam ak cofeel bokk ci li nga xam ne dafay dolli nit ki ay xasanaat muy aw yiw tuyaaba bokk ci sabab yi koy dugal itam àjjana kon kat du lu woyof doomu aadama nag dafa baaxoo lu yàgg ci làmmiñam mu miin ko rek jàppe ne lu woyof la waaye ci yi gën a sunna yi gën a diis ci la bokk teyit siiwal ko ci diggante nit ñi loolu dundal sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la kon képp kuy askanoo yonent bi alayhi salaatu wasalaam wala ngay askanoo sunnaam war nga góor góorgóorlu yonent yee ko jiitu woon dañ ko daan def ñu ragal yàlla ñu mosuñoo dañ di ko def nit ñu sell ñu mosuñoo doon nuyoo doon seen baax jamono nag la dund joo xam ne dafa mel ni sunna soosu dafa dem ba xaw a fay ci diggante yu bari ngir ay sabab léeg-léeg bu fayut itam dem ba mel ne dañ koo weccee yeneen yu bokkut ak nuyoo ba lislaam santaane woon yooyu yépp doon lu doy waar léeg-léeg mu dem ba àgg ci sax ay nit ñuy rombante di dem te doon ay jullit te duñ nuyoo àgg na ci sax léegi léeg boo nuyoo nit daf koy jaaxal mën na laa laaj sax ndax dag maa xam ba tax nga nuyu ma wala fu ma la xameeti woon loolu nag bokkut ak nuyoo bi nga xam ne bokkut ak li nga xam ne moom la lislaam bëgg mu nekk ci diggante jullit yi loolu dafay juuyoog ndigalu yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na du ngeen dugg àjjana li fee gëmu leen gëmu leen yàlla nee na du ngeen mën a gëm yàlla mukk li bëggantewu leen lu rëy la mun leen a dugg àjjana te bëggan te gëmu leen yàlla waaye mun leen a gëm yàlla it te bëggantewu leen mu ne ndax du ngeen ñëw ma tegtal leen loo xam ne su ngeen ko defee bëggante ñu ne ko ah ok mu ne kon siiwal leen nuyoo seen diggante waxu rek ne nuyoo leen waaye siiwal leen ko nay baamtu ci làmmiñ yi yu bari koo dajal rek asalaamaaleykum jën a siiw nañ ko dégg kon loolu lu mat a bàyyi xel la nit ñëw na ci moom alayhi salaatu salaam laaj ko ne ko ban jikko mooy bi gën ci lislaam mu ne ko nga joxe aw ñam ku ko aajowoo nit ku xiif nga jox ko mu lekk ñaareel ba mu ne ko mooy nga nuyu koo xam ak koo xamut koo xam ak koo xamut ki nga dajal te xamoo ku mu doon waaye li gën a not ci sa njort mooy ab jullit la ndax gis nga ci moom melokaanu jullit jullit nag melokaanam daa war a doon melokaan wu ñu xam bokkut ak keneen gis nga ci moom melokaanu jullit kooku da nga ko war a nuyu wala sax gisoo ko ci moom xëy na waaye béréb bi nga nekk jullit a fa ëpp kon nuyul noo xam koo xam lu moo xamul ne ko asalaamaaleykum wa rahmatullah bi salallahu alayhi waalihi wa sallam nee na juróoma yoo xam ne kenn ku ne yoreel nga ko sa mbokkum jullit mooy yan nee na ki la nuyu nga fay ko nuyoo ba ki la ne ne ko waaleykum salaam wala nga yokk ca wa rahmatullahi barakaatu ak ki li wax alhamdulillah mu war ci yow nga ne ko yarhamukallah ak ki nga xam ne dalaa woo invité la ci loo xam ne lu baax la nga dem wuy jikko loolu ci war la bor boo ko yoreel la wala mbokkum jullit mi nga xam ne dafa feebar nga dem seeti ko wala mbokkum jullit mi nga xam ne dafa faatu nga dem ànd ca néew ba ca denc ba ak jullee ga su fekkee ne euh, ña fa soriwut ca nga bokk juróom yooyu yu war la waaye gis nga ne bi mu koy lim mi ngi tàmbalee ci nuyoo kooku day wane ne nuyoo lu am solo la kon képp koo xam ne nuyu nañ ko kon jaadu na ci moom mu delloo nuyoo ba ndax loolu la alquran digle wa ida xuyitum bi taxiyatin su fekkee nuyu nañ leen benn nuyoo fa xayyoo na ngeen fay bi axsana minha na ngeen nuyoo nuyoo bu gën a rafet booba aw rudduha wala ngeen delloo ko bu mel ne ba mu leen nuyoo mën na ko gën a rafet mën na naa mel bu ne asalaamaaleykum bu la neexee nga ne ko waaleykum salaam kooku mooy nuyoo bu mel ne bi mu la nuyu bu la neexee nga teg ca waaleykum salaam wa rahmatullah kon boobu moo gën a rafet bi mu la nuyoo moom bu la nee asalaamaaleykum wa rahmatullah bu la neexee nga ne ko waaleykum salaam wa rahmatullah wala nga teg ca wa rahmatullahi wa barakaatu. am nay riwaayaat yoo xam ne su fekkoon ne dem na ba àgg ca wa rahmatullahi wa barakaatuh mën nga caa teg wa rahmatullahi wa barakaatuhu wa magfiratuh maanaam foofa nag la nuyoo ba yam soo ko ñaanalee yërma yàlla ñaanal ko yërmaandeem ñaanal ko barkeem ñaanal ko ak njéggalam nuyoo ba mat na kon ku la nuyu delloo ko nuyoo bu mel ne booba wala nga nuyu ko delloo ko delloo bu gën ba mu la nuyu te delloo la gën moo gën la mu la nuyoo moom dong ci xadisu abi saidin alxudri radiallahu taala anhu yonente bi salallahu alayhi wa sallam dane maa ngi leen di tere ngeen di toog ci aw yoon maa ngi leen di tere ngeen di toog ci yoon woo xam ne nit ñi dañ fay jaar am ku ne ko nun kat nu pexe ndax foofu foofu rek la ñuy daje suñ génnee ci suñuy kër ci yoon wi rek lan mën a daje léeg-léeg dañ fay toog di fa waxtaan mu ne ko su fekkee mënu leen faa bañ a toog kon joxe leen ak àqi yoon ñi ne ko lan mooy xaqi yoon yow yonentub yàlla bi mu ne damm sab gis day ci jiitu kon toog ci yoon doo sànni sab gis rek loo mën a gis lu nekk gis feg lor mooy ñaareel ba fekk lor mën naa doon fekk ko ci aw yoon xool nga yoon wi gis nga ni lii bu ci nit jaaree mu fil tànkam wala mu bënn pënu otoom wala chareetam nga toppale loola lool ci fekk lor la bokk na ci fekk lor foofee nga toog ñu ne la dammal sab gis nga dégg ci làmmiñu koo xam ne dafa jot ko derub jàmbur wax ca moom lu jaaduwut nga ne ko déet fekk ko kooko fekk nga lor joo xam ne mu nga jëmoon ci jàmbur wala sax xool boo xam ne bu jaaduwut la mu xool ko jàmbur bu mu xool xool bu mel noonu nga tere ko ñetteel ba mu ne mooy nga delloo ab nuyoo ñetteelu àq ya mooy nga delloo ab nuyoo ba ca tegu mooy digle lu baax ak tere lu bon lépp loo xam ne gis nga ko ci yoon wa nit jaar fa wala mu jóge ci ña nga fa toogal di waxtaan lu bon jóge ci ñoom ci wax wala ci jëf nga tere ko loolu mooy xàq ja ca tegu xadis boobu xadis bu la mi ngi ci Buxaari Muslim nuyoo nag dafa am ay teggin yoo xam ne jullit bi dafa jaadu mu xam ko ci fiq la bokk ba ci jiitu mooy ñi daje ci aw yoon di nuyoo kan moo war a jëkk nuyoo lislaam leeral na ko su fekkee ku war la ak kuy dox ki war mooy nuyoo noonu la ko lislaam tëre moo xam daa war a fas wala dafa war daaba muy mala wala ab charrette la dugg walla mu war oto wala mu war welo wala lu demee noonu ka ca kaw daal bu rombee kii dox moo koy nuyu ndax moo ko romb moo ko gën a gaaw kii dox itam mooy nuyu ka toog nit a ngi toog ci jotaayam wala liggéeyukaayam nga jaar fa di dox yow yaa naan ko asalaamaaleykum yow la war soo ko defut bàkkaar ba yow lay tege ci saw loos ki gën a ndawe mooy nuyu ki gën a màgge maanaam gone mooy jëkk a nuyu mag loolu itam ci sunna yi la bokk ndax teggin la jaadu na ci xale bi nga xam ne bu ndaw la mag dugg si ne ci jataay bi mu daal di koy nuyu bu ko bala koo mag me nuyu sax mu jëkk ko ca loola waaye nag bu ko ca mag ma jëkkul woon it mag mi moom jaadu na mu nuyu ko comme ni nga xamee ne danañ ko wax ci kanam su ñaari mbooloo rombantee mbooloo ma gën a bari ñoo war a nuyu ñoo war a jëkk a nuyu mbooloo mi gën a néew loolu mën a limal lépp ab xadis la mi ngi ci saxiixu muslim ñaareel ba moo di dana jaadu ci jullit bi buy nuyoo mu ne asalaamualeykum maanaam nuyoo nuyoo boo xam ne salaam da cay nekk baatub salaam muy jàmm jooji waaye lu bari ci nit ñi dañuy nuyoo bu dee ci arab sabaaxul xayri ngay dégg ñu di ko wax wala nga dégg ñii ne bonjour wala ñii ne sawa ñii ne nanga def yooyu yëpp duy nuyoo ab laaj la yooyu yëpp laaj la Euh, du nuyoo bi nga xam ne moom la lislaam santaane dadi nag léeg-léeg am yoo xam ne ci biir loolu am na fu muy dagane nit ki nuyoo na asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu kenn nuyoo fay ko ba àggal bu leen neexee mën na leen a laaj nag loolu leen neex na nga def ak sawaat baat boo ci mën a teg bu dagan kooku sharia terewu ko léeg-léeg nag ci teggi ni lu mel ni téléphone léegi léeg nga dégg jox ne aloo la ñuy jëfandikoo wala ay baat yoo xam ne bokkul salaam loolu fi muy dagane mooy nit ki su fekkee ki koy téléphoné xamagul ab jullit la am déet kooku mënta tëb rek ne ko salaamaaleykum wa rahmatullah ku mu doon faaw mu jëfandikoo loo xam ne dana tax mu xam ne dégg na ko su kooka waxee mu xam ne jullit la wala kooka ne ko asalaamaaleykum wa rahmatullah mu xam ne jullit la mu doon koo fay nuyoo bi waaye yow mi ñu woo daal jamono yi ngay wuyu ci téléphone bi mën ngaa wax leneen lu bokkut ak asalaamaaleykum wa rahmatullah te loola doon lu dagan mën naa doon alo wala mu doon leneen sopp nañ ci jullit bi su fekkee ne dafa dugg kër boppam mu nuyoo ñu bari dañoo defe ne nuyoo bi moom ab jaambur nga nuyu waaye sa kër bokkuñu ci waxu kay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na soo duggee ci sa soo ñëwee ca sa waa kër na leen nuyu da nga leen jox salaam ndax lool soo ko defee barke lay doon ci yow ak ci sa waa kër kenn ku ne bëgg nga barke ci sa bopp ak barke ci sa njaboot kon nuyoo boobu loolu la leen di jox nee na soo fa agsee ci kër ga sax fekkoo fa kenn na nga ne assalaamu alayna wa ala ibadillahi saalihin foofu nuyu nga sa bopp nuyu nga bépp jaamu yàlla bu baax doonte kenn nekkul ci kër ga itam assalaamu alayna wa ala ibadillahi saalihin nuyu sa bopp nuyu bépp jaam bu baax jaam yàlla yu baax yooyu dugg na ci ña ngay gis ak ña nga gisut maa ne malaaka yaa nga fa jinne yaa nga fa doon ay jullit amaana te gisoo leen kon boo nuyoo nuyu nga ñooñu ñëpp ñaanal nga sax ña fa nekkut képp ku baax ñaanal dugg na ci ñaan googu jaadu na ci jullit bi su dee nuyoo it na nuyoo ci kàddu goo xam ne guñ dégg la waaye nag waxuju dégg ko goo xam ne day yëkkati kàddoom ci kaw ba weesu ñi dégg ko rek ba mën a yee ña nga xam ne dañ doon nelaw wala ñu feebaroon mu sonal leen wala loo gone ya loolu da koy wattandiku ci kàddoom moo tax miqdaad ibn al aswad nee na yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dan daan def buñ demee ratti soow buñ dikkee dan koy bàyyil wàllam moom ci boppam day bàyyi ba julligee ba noppi ni ko yeneen riwaaye nettali ñëw di ko jëlsi mu ne waaye bu koy jëlsi dana nuyoo nuyoo boo xam ne ni mu ko melale daf ne laa yuqizu naiman nuyoo la boo xam ne du yee ka doon nelaw wa yusmiu lyaqzaan ka nelawut nag dana dégg nuyoo ba kon nuyoo bu yam lay doon boo xam ne ka nelawut dana ko dégg waaye ka doon nelawit du ko yee kon loolu mooy teggin ya bokk na ci teggin yi nuyoo mooy su fekkee ne danga ànd ak sa mbokkum jullit nuyoo boobu du caagi ne nuyoo bu njëkk ba rek day daal di jeex asalaamaaleykum wa rahmatullah waaye am na ay mbir yoo xam ne su gaaree it nuyoo mën naa amaat mu mel ne day sunna boo xam ne bu xaw a nëbbu la ba ñu bari jëfeetuñ ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na soo dajeeg sa mbokkum jullit nuyu ko su ngeen àndee di dox ba mu yàgg garab dox seen diggante ngeen dajewaat nee na nuyu ko nuyuwaat ko su ngeen di dox ba yàgg benn miir wala aw sàkket dox diggante ngeen dajewaat nee nuyuwaat ko ne su ngeen dox ba mu yàgg sax am benn doj dara loo xam ne dox na sa digganteeg moom su ngeen dajawaatee nuyuwaat ko kon baamtu nuyoo boobu yiwu kese la tuyaabay kese la ñaanu kese la kon bu doon fanweeri yoon ci bis bi wala téeméeri yoon it ba tey baax na day yokk rek tuyaaba bokk na ci teggin yooyu moo di dagan na góor gi mu nuyu jigéen dagan na ci jigéen it mu nuyu góor waaye dañ koo tënk ci tënk yi ñu ne na fekk seen xel dal na ci ne fitna mënu caa jóge te it joxe loxo bu mu fa am dafa xaraam te it toraxlul say wax wala sewal ko ba mën a yëngal fitna ci kenn loolu itam bu boobaa du dagan bokk na ci teggin yooyu moo di ñu xam ne lu bari ci nit ñi siiw na ne su suñuy nuyoo dañuy yëkkati seen loxo mu doon ab nuyoo su fekkee ne yëkkati loxo googu lam ci jublu moom dafa sori ba su ne asalaamaaleykum ka muy nuyu du ko dégg waaye bi muy yëkkati loxoom nee na asalaamaaleykum maanaam dafa yëkkati loxoom pour yëgal ko ne nuyu naa la fekk nuyu na ko su boobaa loola dagan na ndax bu boobaa yëkkati loxo bi daf koy yëgal ne kenn nuyu na la waaye du yëkkati loxo bi moo wuutu nuyoo bi yëkkati loxo mënta wutub nuyoo kon dangay ngay yëkkati sa loxo boole koog asalaamaaleykum ka lay tontu it yëkkati loxoom boole koog wa aleykum salaam su ko defee màndargam yëkkati loxo ba mooy yëgle ne nuyoo na ñu bari nag seen njuumte mooy dañuy yëkkati loxo ba kese ka lay yëkkati loxoom ñu jàll ñooñu nuyoowuñ ci lislaam ndax yëkkati loxo du ñaan bokk na ci teggin yooyu mooy ki ñëw ci jataay bi toog. daa war a nuyoo su tàggoo jóg di dem itam day nuyuwaat yonent bi sallallahu alayhi wa noonu la ko waxee mu ne kenn ci su agsee ci jataay boo xam ne mbokki jullite ma fa nekk fal yusallim na nuyoo assalaamu aleykum su fekkee ne dafa bëgg a jóg di demit na leen waxaat ne assalaamu aleykum mu ne fa laysat al bi axaqa min al nee na nuyoo bu jëkk bi gën te yey bu mujj bi maanaam ñoom ñaara yam kepp la waroon ba nga ñëwee bi ngay dem itam loola moo la waraat kon loolu nuyoo bu mat a bàyyi xel la bokk na ci teggin yooyu it moo di joxante loxo ci ay góor wala ay jigéeni kese loola ci sunna yi ci la bokk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee amul ñaari jullit yuy daje nuyoo joxante ay loxo lu dul yàlla jéggal leen seeni bakkaar bala ñoo tàqaliko ñoom ñaar kon loola lu baax la lëngoo itam ci nuyoo muy tegante lu mel ni ay dënn bu fekkee ne kooka dafa jóge ci tukki loolu ci sunna yi ci la bokk jaabir ibnu abdullah mi ngi ñuy nettali ne yonant bi sallallahu alayhi wa sallam bi jaafar ibnu abi talib jógee xabasha bi mu dikkee di ko nuyu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf ko lëng ci dënnam ci ñaari ñaari côté yépp kon ku jóge ci tukki loola sunna la ñu nuyoo ko noona ci koo xam ne kum xamanteel la kum xamanteel la lu bari nag ci nuyoo yi nit ñi yi ñu wortee ab nuyoo bokk na ci mooy sant yi ñu bari boole ne asalaamaaleykum wa rahmatullahi yam ca loola day mel ne nuyuwuñ la te fekk nuyoo ba ci jëmmi boppam mooy asalaamaaleykum wa rahmatullah la nga cay teg muy jaar ciw sant wala ya ca des yooy aada yuñ ca dolli la su ca dolli ko yàqul dara waaye nag mënee su koo doyloo ñëw rek mu jaar ciw santam kii jaar ciw santam mu jeex loola du ñu bari bu ñu la nuyoo ñaari yoon ak ñetti yoon boo xamul seenu sant ñu ne kooko daa ñàkk yitte te lislaam fegaloon na leen lu mel noona ndax nit ki mën naa nekk situation boo xam ne ñi xam ñëpp mën leen a xam te ñu ci bari dañoo jàpp ne suñ la nuyoo xam saw sant yow itam da war a xam seenu sant soo ko deful da ngaa ñàkk it mu daal doon coono boo xam ne nit ñi ñoo ko indil seen bopp. ba tax na lu baree baree bari ci mémoire jullit yi ni ko lenn ci borom xam-xam yi di waxee tey mooy li koy feesal mooy ay sant feesal dell dell ak i sant yoo xam ne du jeex te lu doy doy waar la moo di mémoire dafa am capacité boo xam ne su demee ba fees li ñu tudde naag mooy dal nit ka. kon lépp looy feesale sa bopp war naa doon loo xam ne looy segg bu baax a baax la boo gisee lislaam fegoon yu mel noonu yépp fexe ba asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu doy muy espace bu tuuti ci sa mémoire yow nga bëgg téeméeri junni nit kenn ku nekk nga xam aw santam te wenn sant wi nga xam pour nga dëppale ko xar kanam bii ba mu wóor ne bii moo moom boobu jëmmi sant woowu ci boppam beneen xaarkanam ba ko moom tamuy wenn sant wi day jëlaat beneen espace ci bopp yu bokkul ak ba beneen jëloon kon mémoire doom aadama mooy kéemaanug yàlla goo xam ne dafa yaatu lool waaye sudul loolu sudul loolu kon ndaw ñëpp naag nañ bu yàgg yàgg ndax li ñuy def ci bopp yi ci yoo xam ne daanaka yu amul solo la loolu nag tekkiwul ne nit ki bu mu jéem a xam santu kenn oho kay loolu itam li gën ci mbir yi mooy digg dóomu digg li gën ci mbir yi mooy la ëpput yeesut ñi nga xam ne mënoo leen a bañ a xam nga xam leen ci seeni sant ak seeni tur su nemmikonteeg siyaarenteeg dem ak a ñëw amee seen diggante xamante am kenn néewu la buñ la nuyoo jaar ci saw sant bul ci jaar ok oh, loolu lu baax la aadala boo xam ne sharia terewu ko waaye nag la baaxul mooy loola wuutu nuyoo ba su wuutoo nuyoo bu lislaam ba ko baaxatul léegi bokk na ci teggin yooyu mooy nit ki leeral xar kanamam buy nuyu mbokkum jullitam boole kook sax muuñ ni ko yonente bi alayhi salaatu wasalaam waxe ndax nee na wa tabassumuka fi wajhi axiika sadaqa muuñ ci sa xar kanamu mbokk jullit kooku ci boppam sarax la kon ko da ci am yool bu toll ne yoolub sarax kon dul woyof nee na it bul xeeb ci aw yiw dara donte sax da ngay taseeg sa mbokkum jullit sa xar kanam doon bu leer ci kanamam kooku yiw la bul ko xeeb bokk na ci teggin yi mooy sopp nañ ci nit ki doonte mag la bu rombee ay gone it mu nuyu leen maanaam ginnaaw ka romb di dox moo war a nuyoo romb nga ay xale yu ndaw ñu ngi ci mbedd mi di fo wala ñu nekk ci seen daara di jàng nga nuyu leen anas ibnu malik radiallahu taala anhu daf daan romb xale yi di leen nuyu di wax ne yonente bi salallahu alayhi wa sallam nii la ko daan defee ci xale yi maanaam su leen masaan romb da leen di nuyu moo tax an basa di wax ne gis naa abdullah ibnu omar ibnu alxataab muy nuyu gone yi di leen fekk ci seeni daara di leen nuyu di leen wax asalaamaaleykum daal di jàll looloo dafa doon lu am solo ci xale bi ndax dafay dugal mbég ci xolam day yëg ne moom kat nekk am na benn considération nit ñi faale nañ ko nekke yëg nañ ko ñaareel bi daf koy jëmbatal moom ci boppam moom xale bi njàngalay lislaam day tax mu teel a xam ne ah lislaam kat kon dafa santaane ne nit ki kon kum romb des ko war a nuyu ku romb nit da ko war a nuyu bokk na ci teggin yooyu moo di ab yéefar muy kudul jullit ku nekkul ci diine lislaam gëm yonente bi sallallahu alayhi wa sallam gëm alquran kooku diisu ko njëkk a nuyu nuyoob lislaam diis ko ne asalaamaaleykum wa rahmatullah diis na ko it asalaamaaleykum mënees ko wax leneen nag mënees na ko allo mënees na ko ne bonjour mënees na ko ne jàmm nga yendoo xeet yu mel noonu mën nañ ko waaye asalaam nag kooku kenn du wax ku dutu jullit yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na su ngeen di nuyu yahuud ya ak nasraan yi te ñooñu ñooy eh, gën a jege jullit yi ci xeeti yéefar yi loolu moo tax jullit yi mën a denc ci ñoom mën a lekk seeni ñam waaye ànd ak loolu nee na bu leen leen jëkk a nuyu nuyoob salaam nee na ñoom sax suñ leen nuyoo ne yamal ci wa aleykum waaye bul ca boole salaam kon ñooñu leneen lañ leen war a ñaanal lu mel ne hidaaya muy gindiku ak yu mel noonu waaye nuyoo bu mel noonu kon loolu ñu xam ne loolu séparation boo xam ne l'islam moo ko teg foofu muy àtte bu maandu kon mbokki julli li loolu benn sunna la ci sunna yi nga xam ne léeg-léeg mu nekk lu war léeg-léeg mu nekk sunna suñ feddaliku léeg-léeg mu nekk sunna am ay àtte yu bare bari yoo xam ne jaadu na jullit di xam ko kon ñu gën a góor bu baax a baax ci lépp loo xam ne lu aju ci wàllu nuyoo la di nemmiku nit ñi di leen nuyu di xamante ñoom ndax ci lii dundal dundu askan wi ci la bokk li tax nit ñi xamante mën a jàppalente mën a dimbalente mën a ràññeente loolu ci la bokk allahuma aisa alislaama walmuslimin wa adilla alshirka walmushrikin wa dammir aada addin wajcal allahuma hada albalada aminan mutmaina wa saira biladi almuslimin allahuma wafiqna lihudaak wajcal camalana fi ridaak allahuma wafiq almuminina walmuminat والمسلمين والمسلمات لما تحب وترضى وهيئ لهم من أمرهم رشدا وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم واجعل ولايتهم في من خافك واتقاك يا رب العالمين وصل اللهم وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه